bisimilah daleen ak jàmm ñu dikk ak ci li gën a fës ci yéen des koy door rek direct news xëy dikkaat ci li ñu jëm ci wàllum foncier mu ne suspension de toutes les opérations dans plusieurs zones ciblées par trois mois li nga xamante ni moom la nguur gi jël jamono ji nag mooy am na béréb yoo xamante ni lépp lu fa ñeeloon wàllum tabax nag daal dinañ koy gàntal fii ak ñetti weer loolee direct news daal koy xamle mu ne nag luy tolloog ay ñu daal di yóbbu chômage nag ñoom dootuñu amum xëy ba fekkente ne daal ci DSCOS mi nga xam te ni mooy saytu lépp lu jëm ci wàllum tabax ci domaine public bi mu ne nag ñoom ñoo daal xam ne rek ni kon ki nga xam te moom moo di kilifa gi di ilimaani juriñ ji moo di jëlub dogal ne bépp tabax boo xam te ñu ngi koy amal ci domaine public yenn gox yi nañu ko dakkal fii ak ñetti weer mu ne loolee nag moom dana indi ay sooxe ci wàllum xëyu ndaw ñi waaye tam ñi nga xam te ñoom ñoo di entrepreneurs yi artisans yi xam te ñoom ñoo dugal seen loxo ci li nga xam te moo ñeel wàllum tabax nag ñoom ñëpp danañu am ay jafe-jafe ci mbir moomu le direct news dikkat waaye tamit daal ñuy xamaat ne ki nga xam moom moo di direction générale na bolonage daal dinay jàmmaaro ak ñi nga ñoom ñoo di seen i partenaire ku ci demee ni première bet Sénégal ak syndicat des travailleurs amal am ndaje ak ñoom ngir waxtaan ak ñoom ci li nga xam te ni moo nekk liggéey beeg jokkalante gi le peuple yéen i kaay nañu Barça wala Barça ak juróom-ñett fukk ak ñett ci ay ndaw yoo xamante ni nag dañu jëloonu gaalu loo ci a dem ca tugal nag ñoom daal dinañuy faatu ci biir géej gi ci lu tollook ñaari weer journal bi dikkaat na ci nga xam te ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci biir géej gi ci weer yi nga xam te moom la ñu génn bés bi yéen i kaay nañu nag ji premier ministre bi nga xam te daal a bàyyi ñu daal moo di Barthélémy Ndiaye mu ne cette minorité a été d'un grand apport dans les rencontres de Diamniadio relatives au report des élections ñoom daf leen minimiser jamono jile bokk nañ ci ñi nga ñoom demoon nañ ca Diamniadio ngir nag wax li nga xam xamti moom moo nekk seen gis-gis ca ndaje moomee nga nga xam moom moo di élection yi mbir moomu nekk ku nekk wax nga ci sa xalaat waaye tamit journal bii di bés bi yéen kaay dikkaan na ci descos bi nga xam te ni daal dinañu koy samp ngir nag mu daal di saytu yenn liggéey yi nga xam ñu koy amal ci espace public bi ngir daal koy gàntal noonu la ko journal bi xamle la Soleil yéen kaay nañu la Falémé à l'agonie bombe écologique et péril sécuritaire mu ne nag Sénégal ñu am ñoo xam te ñu nga fay yëngatu di fa saytu lépp jëm ci wàllum or ñu ne nag boo matul ay jafe-jafe mën na fa am nag ndax am na ñaari rapport yoo xam te ni daal ñu ngay xam le ni ñi nga xam te ñoom ñoo fa dëkkee mënees nañu jàmmaarloo noonee la ko daal xam ne la dépêche yéeni nañu union des chambres de commerce Serigne Mboup présente aux entrepreneurs une foire d'opportunité fi mu toll ni nag moom Serigne Mboup bi nga xam te moom moo jiite union des chambres de commerce boobu noonee

wuyu ji boromam l'éveil quotidien nañu économie numérique le Sénégal à l'école de la Chine dem nañ fa nga xam moom moo di Chine ngir nag gëstu la nga xam te ñoom noonee la ñuy ci wàllum numérique waaye tamit ngir xoolaat na nga xam te noonee la ñu a def daal ba daal jël ay jéego yoo xam des na ko jële ci ñoom l'éveil quotidien dikkaat na ci ci na mu gën a yaatoo libération yéenikaay moom itam xëy dikkaat ci meneenu mbir mu ne nag li nga xam saisi la sûreté urbaine pour enquête ñoom nag daal dinañuy dem enquête ci mbir moomu lee dans sa plainte contre Ibra Kane ak Alassane Holding ba nga xam te Abdoulaye Sylla moom moo ko moom nag la nga xam te na ko daal moom mooy noonee nga xam yëkkati woon na ay kopparam dugal ko ci kër googe nga xam moom moo di média ñoom nag dañu ko wor jamono ji ndax nag ñoom yëkkati nañu ay koppar yu tolloog huit francs euh, CFA koy génne ci li nga xam te moom moo di Mamadou Ibra Kane Alassane Samba Diop ak Boubacar Diallo ak Mamadou Ndiaye ñoom ñoo ko bokk te yoo xamante ni nag jaarul benn yoon loolee nag tax na ba ki nga xam moom moo di actionnaire bu groupe E-Media boobu ne daal di jël dogal nag yóbbu leen ci fa mbaxana doone benn ki nga xam moom moo di Mamadou Ibra Kane mi nekkoon njiital groupe de presse boobu tamit tontu na ko mu ne am d'affaire boobu nga xam moom moo di Abdoulaye Sylla Ecotra ki moo moom moo di Abdoulaye Sylla na joxe ay preuve ci li nga xam te nii mu koy wax jamono jilee ni dëgg la libération yi xëy na def ci ab jàngat bu yaatu yaatu le républicain nañu nag li nga xam moo nekk dàquk docteur Cheikh Dieng foofee nga xam moom moo jee ca ONAS plateforme des auteurs pour la lutte contre les inondations ñoom nag d'accord nañu ci mbir moomu na nga xam te kilifa yi jële dogal bi ngir jële ko ci bopp ONAS accueillir mu ne nag la direction générale des impôts et des domaines propulse les vers la formalisation ñoom nag fas yéene gunge li nga xam te moom moo di entreprise yu dëgg doomi ngir nag ñu gën a teguwaat ci yoon waaye tamit l'info quotidien nañu lutte contre le litige foncier xeex lépp lu jëm ci wàllum coowal suuf ci biir réewum Sénégal kër gi xam te ni moom moo di DSCOS nag di saytu lépp lu jëm ci wàllum tabax ci domaine public bi ñoom nag daal dañuy jëlop dogal ngir daal di yenn liggéey yu bëree bëri Seck xëy dikkaat ci meneenum mbir mu ne 4109 mètres carrés à wàqinaan nimzat attribué à Serigne Bassirou Gueye ki nga xam moom fi fi nekkoon jiitu réew du Macky Sall moom moo ko neexale kii di Serigne Bassirou Gueye ji te la nga xam te noonee taxawee ci mbirum Adji Sarr daal di samp laaj fësal ci xëtam mu njëkk la nga xam te ni di nataalu Serigne Bassirou Gueye njiital OFNAC nekkoon fii tamit procureur de la république minutes quotidienne ñu les flux des filaos dépassé les 2000 waa ñi nga ñoom ñoo di doomu géejuwaay seen bande de filao boobule am na ci lu tolloog ñaari junni parcelles yoo xamante ne dañu ko caqat-caqat te séddoo ko ana ñan ñoo jël suuf soosule ak fu ñu ko jaarele journal bi sampu mu ne tamit bande de filao boobu dënkan li nga xam te ni daal moom moo fa am maire bu ba daal amul lenn loo xamante xam na ko ci xamul nu muy demee waaye tamit am na budget boo xamante amoon na mairie ba le poteau rose deuxième une catastrophe noonu la ko journal bi xam le jafe-jafe bi nga xam te am na foofee ca bande des filao nekk ci géejawaay te maire bu gox ba daanaka la nga xam te ñu ngi ko fay def amul lenn loo xam te ni xam na ko ca réew mi quotidien nañu opération foncière Sonko ordonne une nouvelle suspension ki nga xam te moom moo di ilimaani jëwriñ ji daal moom moo daal di jël dogal ngir nag ñu dakkal li nga xam te moo nekk liggéey ci gox yu bëri bëri ci biir Sénégal ngir xeex lépp loo xam te ñeel na wàllum coow ci wàllum suuf ci biir réewum Sénégal moom nag mu ci kër gi nga xam moom moo di Descos le Dakar waaye yéenekaay nañu milliards de francs CFA de passif en septembre mu ne nag le parapublic coule sous les dettes ñi nga ñoo nekk ci wàllum parapublic bi daal la nga am nañ ko ci ay bor jamono jile bëri na lool daal di ci xëtam mu kër gi nga moom moo di Sénélec Petrosen Sogeda Sogepa AIBD kër yooyu lay yëpp nag ku ci nekk am nga ay bor yu bëri bëri yoo xam moom ngay doxee nañ ko ngir daal di dakkal ab liggéey boo xam ñu ngi koy amal ci domaine public bi ci fukki gox ak benn mu ne nag li nga xam te moo di onze sites visés par la DSCOS loolee lépp danañ fa dakkal liggéey bi fii ak ñetti weer dogal boobee daal moom mooy li nga xam te moom la kilifa yi daal di jël source a nañu nag mouvement d'humeur à la mine d'or de Sabodola foofee nag am na ay ñaxtu yoo xamante ni am na fa le pêcheur de Sabodola Gold Opération éclat na nga xam te noonu lay doxale moom kër googu di Sabodola Gold Opération daanaka neexul ñi xam te ñoom ñoo fay liggéey waaye tamit ñu ne nag lu jël bi maanaam suuf si diggante ndakaaru Thiès jàpp ndar géej mu ne nag boo moytul daal loolee mënees na ko jàppe bombe à retardement yàgg-yàgg dana am ay jafe-jafe yoo xamante mën na ko jur ci askanu Sénégal noonu ko journal bi xam ne l'évidence quotidienne nañu fin des audits transmission du rapport au parquet rénovation de prison ces de Macky qui vont en prison am na ci ñooñ ñoo xamante ne ay nitu Macky Sall boo moytuwul nag danañu dem fa nga xam te xam te nemmeeku nañ ko mooy ñu ngay yeesal li nga xam moom moo di kaso yi la ko waral nag du leen lu dul am na ci ñooñ ñoo xam tudd dañ leen ci biir rapport yooyu la te ba moytu dañ leen yóbbu fa mbaxana doone benn yóbbu leen ndungu seen critique yéeni nañu avenir bu parti démocratique sénégalais ki nga xam moo di doomi Abdoulaye Wade ji di Karim Wade nag moom mooy ki nga xam moom moo yor baay ba waaye tamit daanaka na nga xam te dem au ministre et DG la nga xam te daal jëfe nañ ko dàq ki nga xam moom moo di docteur Cheikh Dieng bopp ONAS gannaaw ba nga xam ñetti weer rek la defagum ci bopp kër googule lu ni mel nag daanaka ak xupp la ci ñi nga xam ñoom ñoo di yenn ministre yi nga xam ñoo nekk ci mbir nguur gi jamono ji l'observateur yii ni kay xëy daal di jox interview ki nga xam moom moo di njiital kër googule di Youssou Jigéen Ndour mu ne Youssou Ndour se livre en soin et en sens xam te moom moo di diktat ba nga xam te moom la leen yenn réew yi daan jéem a def maanaam ak nooteel goo xamante daanaam ñi nga xam te ñoo di kilifay Afrique yu yees yi fi nekk loolee duñu ko nangu wax na ci wàllum immigration clandestine ak bor bi nga xam te Afrique amee na ko jamono jire waaye tamit journal bi di l'observateur yéeni kaay ne naka société civile accident immigration clandestine opposition entreprise en difficulté chômage joomaay le poids de la pression fi nii daanaka dañu koy teg pression jamono jire Dakar Time nañu note sur les nouvelles orientations diplomatiques du Niger réew religieux Da Abed joue les trouble fête à Dakar moom nag mu ngi ci Ndakaaru gannaaw ba nga xamante ni ni démb ki nga xam moom moo nekkoon naataangoom ba doon jàmmaarloo ci élection présidentielle di Ghazouani moom la doon installé foofee nga xam moo di ca bopp réew bu Mauritanie nag moom daanaka la nga xam bëggoon na mooy lëbëje boobu lépp cérémonie noonee la ko laas quotidien daal di xamle waaye tamit l'indépendant yéenikaay dikkaat ci li nga xam te moom moo di réforme du cadre juridique du centre de gestion agréé mu ne nag la DGID formalise les PME mu ngi gunge li nga xam moom moo di entreprise yu déggu doomu yi ngir nag ñoom ñu gën a jaar yoon waaye tamit gën a ak la nga xam te moo nekk bëgg-bëggu kilifa rawatina nag ci wàllum koom ak li nga xam te moo nekk wàllum lempo témoin la mafia foncière se poursuit nouvelle suspension d'opération di xememteefu kilifa yi mooy nag lépp loo xam te ñeel na ak njuuj njaaj waaye tamit ak jaay doole ci wàllum suuf ci biir réewum Sénégal ñuy fexe ba gàntal ko dakkal ko jafe-jafe yi nga xam te ñu ngi koy nemmeeku ñu daal di ko ciy jëlee ndax nag ñi nga xam te ñoom ñoo di suñuy kilifa daal am na luy tolloog fukki yoo xamante ni daal dinañ koy joxañ baaraam ne lépp loo xam te ñu ngi ko fay def ci ab lëggay nañu ko gàntal loole nag mu nga nekk ci diggante Dakar Mbuur Ndar ñu daal di koy jël dénk ko kër gi nga xam te moom moo di Descos la nga xam te ne suñuy kilifa bëgg nañ ko rawatina ki nga xam te moom moo di ilimaani jëwriñ yi mooy fexe ba lépp loo xam te am na fi ci ñu daal di koy dindi dootul am li nga xam te moom la ñu woowee litige foncier tribune yéenikaay nañu drame de migration clandestine mu ne nag le gouvernement est autant responsable que xam te ñoom ñoo di nguurug Sénégal daal daanaka ñoom ñooy ñi xam te ñi ñoom ñooy responsable yi nga xam te moo tax lii nga xam te moom moo di émigration clandestine daal di wéy ba léegi ci biir Sénégal ñoom ak ñi nga xam te ñoom ñooy tëgg gaal yi di yóbbu ndaw ñi ñoom ñoo bokk ay responsabilité ñoom ñëpp ñoo yem ci mbir moomu leen noonee la ko journal La Tribune yéenikaay xamle mbokk mbokk yi mu nekkoon li gënoon a fës yéenekaay ñu doon leen ko dégtal di leen jox dig daje ëllëg incha allah jërë vous sur votre chaîne YouTube DKR et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.